بالحق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في الأقد ومن شر حاسد إذا حسد من شر ما خلق من شر ما خلق نيو أكو تغوري الله يلا دندو إن تندون تغوري يلا دندو إن مصيبة تغوري إن الله تجي dengan da ko nyaw nyaw ko tek nyaw da bo yalla dandu hen hen woni jogataare meden ko duwaw kono non sado duwo a afawat golle ma duwa ma e ko allah wi ko huzu hijrakum ndentuɗe ndentuɗe hade mon yande ko hada ko ndentuɗa ko hada hade ko hada ko ko lorrata ko ma an ndentuɗa hade ma yettade hen e kadi ndentuɗa hade ɗum ma non ya allah wallu en ya allah wallu en min calmini leydi ndi fof min calmini hohoɓe leydi ndi min calmini président de la république ko yiɗen leydi ko yalla rokku mo hen woni njaaraam ginnaaw bi ñu sante yàlla ñu ngi ñëw di jot li suñu mbokk wolof yi waxu Thierno Madani déclaration bi mu def def na fi déclaration bu am solo eh, wax na historique eh, nit ki toujours dafa war a topp ndigalu yàlla mu jël benn aaya quraan bu suñu borom di wax xuzu xidrakum moytu leen lépp loo xamee ne daf leen di lor lii bokkan si ñuy li ñuy lor kon nañ ko moytu ginnaaw bi mu sante kilifa réew mi sant xalif généraux yi ñoom ñëpp seen déclaration yi ñu def donc mu ne moom tam déclaration dafay ñëw rek feddali ak dëgëral li ñele waxoon loolu la rek lay wax mu ne mbir mi ñun ñëpp xam nañ ko mooy dafa am jàngoro bu dugg si ñun jàngoro ji nag dafa lëmbale àdduna yëpp amul fenn fu mu bàyyi kon ñun lan mooy suñu rôle ñun jullit yi nañu topp kàddu yàlla mooy yonent bi nee na su feebar ñëwee si réew bu kenn génn réew boobu ñi nekk ci biti tamit bu ñu dugg pour ragal wàll ndax nit loo jullit loo bugal sa bopp da nga koy buggal sa moroom kon mu ne amul rus képp koo xamee ne yëg nga ci sa yaram am na lu ci lu lu ci nekk lu ci nekkul woon na nga gaaw dem ci fajkat yi soo amee gan tamit bu ñëw nga yëg si moom loolu na fexe dem feebar amul lu si ruslu mu ne yàlla moo ñu yónni lii lii mu ñu yónni nag mu ne amul lu koy faj lu dul fagaru fagaru nag moo gën moo gën moo faju kenn nit ki su fagaroo moytu loolu moom la ñuy wax tawakkul mooy ki nga xamee ne wekk na mbiram si yàlla yëpp ndax soo waxee man dama wékk sama mbir yëpp si yàlla fekk fagaruwuloo moytuwuloo yow bokkuloo si ñi ñuy wax mu mutawakkiliina yi mu ne nañu góor góorlu ki nga xamee ne euh, événement yu doon am yëpp nañ ko moytu ndax dafa ñëw mu ne loxo joxante loxo yi soxlatul mu ne nuyu jullit mooy wax asalaamu aleykum sépp koo xamee ne keneen ki delloo ko waaleykum salaam mu ne joxante loxo bi xëy na yokk la rek jullit yi dinañ ko def ñu dul jullit dinañ ko def mais nuyoo bii moom ñu yor moom moo gën a mot suñ ko waxee mu doy ñu bañ a joxante loxo yi ñu moytu tamit mbooloo yi mu ne lan mooy luy faj mooy dellu si suñu borom mooy addu'a u silaahul muumin ñaan mooy gànnaayu jullit nañu dellu ñaan mu ne nañu génne sarax sarax dafay fànq bala bokk na si sarax nag mu ne sarax kenn du wax ne ginaar la walla mburu la wala xar la lépp loo xamee ne rek di nga ko dugal ci xolu jullit bi mu békk koo koy jox ki su dee dina bég rek loolu sarax la idxaalu surur fil qalb loolu mooy sarax nga jël dara jox ko ko xamé ne mom reyna na si moom mu bég yàlla bég si yow mu ne lolou dal mom la lañu wara def ñu moytu nag nuñ doon def ni yëpp aada yu ñu yoron yi luñ doon def li mu ne so waxé ne ren damay def sama damay dem ziyaare ji sama sëriñ day fekk ren ren bi fekk la fi ndax sude ren dafa am ay galankor yu am ku nekk na toog xëy na déwén yàlla may la wér nga dem du mais soo waxee ne da ngay dem insister soo demee nga wàll foofu wala ñu wàll la déwén du la fekk nga dem foofu kon nag moytu bi daal mu ëpp solo mu ne mu ngi décision bi président de la république jë jël bi euh, day vous ne ak population ak wutal di leen wutal yiw mu ne loolu moo ndax li lu mu du tere ko pour tere de daf ko tere pour lu gën si ñun ndax di nga gis xale muy def dara nga tere ko ko xale bi yaakaar ne am na loo ko tere ndeke li nga ko tere li moo gën si moom kon nag ñu bañ a jaxasoo ñu moytu jaxasoo yi si mbooloo yu rëy yi muy tudd yeeg ngénte yeeg ceet yeeg yëpp jaxasoo yooyu ñu moytu ko mu ne mu ngi sant sëriñ yi sëriñ si xalif général des Tijanes déclaration bi mu def pour annuler ziyara général bi ñuy def bi mu ngi sant Serigne euh, euh, Cheikh Mountakha euh, bi nga xamee ne moom tam kazu rajab bi annulé na ko mu ngi sant cheikh no ama tijane ci Daaka neew na ñu doog ñu commencé won ñëw ñëw nañu nañu dellu ñu ñëwul woon nañu des foofu ñaan dina doy ku net nit fu toog yëpp ñaan mu ne yii décision yëpp décision yu noble la yoo xamee ne dafay wone rek seen farlu ak bëgg seen seen seen njaboot loolu lay wane ndax munoon nañu ñëw cardinal tamit def na déclaration nee na seen événement yu ñuy def yëpp annulé nañ ko laayeen yi tamit déclaré nañu mu ne lii yëpp dafay wane ne euh, li ñuy wut li mooy jàmm jàmm mooy am ba pare ñu dene mun a def leneen nu ko tugalóor yi di waxee jàmm day am ba pare ñu mun a julli ci juma su jàmm amul kenn du julli jumaa kon nag événement yuy am yi yëpp su ñëw suñu suñu suñu wérul mënuñu ko def kon nag mu ngi ñaan yàlla na yàlla wàccee jàmm mu ngi fi wax na fi qul audu bi rabbi bi rabbi nnaasi maliki nnaasi ilahi nnaasi min charri waswaasi alxannas maa xalaqa min charri maa xalaq mooy mu ne mbir loo xamee ne yàlla moo sàkk feebar bi kon nag ñu ngi muslu si yàlla si feebar bi mu ñu indil moom rek moo ñu ko mun a fànqal keneen munu ko fànq kon nag ñu delluwaat si yàlla rek dafa am lu ñu yàlla di wan ñu delluwaat si yàlla ñaan yàlla moom moo am doole ñun amuñu doole xam nañu suñu tële kon nag yàlla nañu yàlla yërëm si yërmandeem mu bay ñu jàppee suñu ay jëf lii daal mu ne lu waral nag mu ne nañu moytu tuur deret yi bëri na bëre tere yi na bu baax a baax a baax a baax at bi passé rey yi ñu ci wax yi dafa bëri te ay rey doomu jàmbur rek nga rey leen si neen mu ne loolu nag baaxul nañ ko bàyyi dellu ginnaaw suñ ko defee rek yàlla def ñu woon boppam tuuti nag la ñu yàlla wan ci boppam suñu wanoon lépp duñ fi xej kon nañu moytu ray yi nañu moytu tuur deret yi nañu moytu tuur deret yi ñu moytu tooñ tooñante suñu biir ndax yàlla si boppam moo wax ne man maay seen borom maa leen yilif kon araamal naa tooñ sama bopp kon nag bu leen tooñante seen biir yéen kon lii daal moo doon kàddu li na wax li yëpp mënu ma ko wax mais lii daal moo si ëpp solo si li ma si jàpp kon yàlla nañu yàlla taxaw wasalaamualeykum wa rahmatullah